Assalam alaikum bokki téléspectateurs CIK TV assalamu alaikum, wa diaspora alaikum, wa Sénégal xew-xew. bientôt le 20 août fi nga xamantene moy Medina Zac ci Aré Baye Diouf kër Cheikh El Ibrahima Keita di docteur bu mag bi nga xamantene moy fajj def consultation gratuite mu tombeek anniversaire u Keita kon bientôt ah gars bientôt ma la laamewaat ko waxat ko bamtu ko baamtuwaat ko bientôt le 20 août le 20 août fi lay xewé fi ci keur Cheikh Ibrahima Keita journée consultation gratuite jere ngeen